monsieur le ministre yar dal ak teggin mënta nekk condition nécessaire ñu di la woteel budget bi wala condition suffisante ñu di la ko woteel <clears throat> parce que lii ñun moomuñu ko euh, ñaareel bi monsieur le ministre dafa nee nañu wax kenn du yërëm nit may ko jabar donc ñu euh, mën maa ko wax <clears throat> euh, les les anciens d'Air Afrique yaakaar naa ni war nañu lu fay leen lu ci des ñaareel bi mooy daaw ñëwoon nga fi nee yaa ngi liggéey ci benn stratégie nationale de développement du tourisme yaakaar naa noonu la tudd dafa waroon am sax benn table ronde des bailleurs de fonds bon évidemment la Covid 19 euh, jaxase na loolu yëpp euh, c'est pas de votre faute donc xam naa di nga ko reprendre. Euh, soo ko reprendrewul tamit war nga kaa def <clears throat> jublu nag ci ñëpp ñëpp xam léegi mooy tourisme intérieur parce que tourisme extérieur moom yaakaar naa ne y a des am na ñu ko fi wax tourisme religieux moom mën nañ cee sukkandiku évidemment ah, Philippe Beaune moom yàq na Air Afrique Air Sénégal International xaritu Macky Sall un ancien de service secrets d'ailleurs loolu la bind ci téereem moom Philippe Beaune ñëw na fii Euh, dugal ñu ci ay dette boo xam ne am na ku fi doon wax modèle financier Air Sénégal International bu njëkk bi waxoon nañ ko fi asamble nationale Air Sénégal en tout cas ministère bi dafa tàmbali woon def benn étude mu pare étude bi Philippe Bohn ba mu ñëwee mu sànni mu dem génne ay Airbus donc là évidemment sa va plomber les finances donc d'Air Sénégal International bon chance camarade Ibrahima Kane euh, bu loolu weesoo euh, monsieur le président monsieur le ministre da ngeen di góorgóorlu ngeen respecté député yi ngeen respecté assemblée nationale digoon nañu ne avant nga ñëw plénière suñu question spécifique yi di ñu ko yónnee man gisuma ko xaw ma nag su nekkee yéen gis ngeen ko mais man gisuma ko ministre d'ailleurs yu bari def nañ ko dama jàpp ne loolu yabaate la mënoo ñëw commission ne je réponds globalement les questions spécifiques danaa ko dinaa leen ko yónnee avant la plénière plénière bi ñëw nga jaar dem sa yoon loolu yaakaar naa ne lu suñu cër ñun waa député assemblée na ñaareel bi gis naa fi ce matin benn banderole génne ngeen ko xam nga ne loolu règlement intérieur nangu ko évidemment sa président parti ci boppam moo dul respecter règlement intérieur <coughs> président de l'assemblée nationale article 119 suñu commission aménagement moom moo war a nommer représentant assemblée nationale AIBD mu foqati ko def lu ko neex ma ñëw conférence des présidents dama ciy wax mu bëgguma tawaxal day sonal boppam xam na ma xam na ne man mënumaa man mënta nekk donc respecté wul sax règlement intérieur article 119 respecté wul sax commission aménagement mais man du man la koy def parce que man wóolu naa sama bopp gëm naa sama réew fonk naa sama askan fonk naa sama der donc respecté leen règlement intérieur loolu laa leen di yëgal asalaamaaleykum wa rahmatullah